suñu mbokk internet yi ah comme ni ñu koy defee à chaque fois nee naa leen à actualité bi tollee fii dañuy ñëw ba kër Soxna Aïda Saliou euh, waxtaan ak moom ci actualité waxtaan ak aussi euh, naka la jamono ji doxee duñ sori ci wax ci dañ koy jox mu yokk mbokk internet yi après ñu dëkk moom ci waxtaan bi a ñu ngi leen di di la ziar di la baalu ak ci weeru koor bi ñu jógee. ah asalaamaaleykum alhamdulilahi rabil alamina ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi ñaanal suñu buntu ci sëriñ Touba di sëriñ Mountakha Bassir ñaanal sama buntu ci sëriñ Saliou Cheikh sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou waaye di ñaanal njabootu sëriñ Saliou gépp seen fan yu mel ni doj waaye noonu laay ñaanalee àdduna wërngël képp na soxna Aida xol bu ubbi fekk ci soxna Aida mais nañu xam ne cofeel gi ak yëg-yëg bëgg gi fii la rawee ñëpp laa bëgg international baa ngi <laughs> alors ngi noonu yaakaar naa duñ def la dul dugg ah, waxtaan bi rawat na ci réalité bi nga xamante ni maman fan euh, ñëpp ñu ngi ci yey bi mu nekk coowal amercu ak nga xamante ni moom mooy Wally Seck alors euh, Mandiaye génn na waxoon lu mel noonu tey euh, amercu répété ko ban jàngat nga am ci loolu. non loolu wax naa ci ba pare. Hmm. loolu débat naa ci ba pare loolu ba débat boobu yi tëj nañ ko boobu moom. close nañ ko quoi waaw man nee naa leen lépp loo xam ne ànd nga ak nit vingt ans wala nga ànd ak moom dix ans wala nga ànd ak moom weer hmm. bu dëggu bu sénégalais yëpp jàpp ñëpp xool ko ñëpp xàmme ko. Mhm. boobu ànd nekkatul loo xam ne war nañ koo bilipande. lala mhm. ca neex ak lala ca naqari danga koy boole di ko muñ boo leen ko waree waxtaanee ngeen fatu ci néeg waxtaanee ko jataay ko mu jeex ci yéen mais parce que boo leen ko génnee rek kenn ku ne ak ni muy xalaatee dama yaakaar ni koo àndal ay at ànd ak baayam ba ànd ak moom nekkatul àndu caaxaan. Mhm. àndu vie la ba ki leen boole woon dem ba leen fi. kon yow am na sas bu la bu xale bi defee sax duma ko jiñ xale bi yow mag mi laa koy def ndax waroo sàggan bay xool ba xale biy def lu la neex ak lu la neexul bu dee taxawaay bi mat na kon li ci des wax naa ci bu ñu duggee ci internet bi ku taal di nga gis soxna yi da ko dugg ci tiktok bi ndax waa lii baa laago sama doom la bi ma koy jur moom néew ma kaay jur ma sama xol moo am sentir parce que ñëpp bëgg ma doon seen yaay ah ñëpp bëgg ma sopp leen ñëpp a bëgg ma faa leen ñëpp a bëgg ma bàyyi leen xel mais àdduna laa nekk Sénégal amul ku fi yeewoo doon doomi Sénégal te soxnaay Aida bàyyiwu la xel wala soxna Aida amul ci yow cofeel mais dafa am ñoo xam ni yàlla moo ma am loo vision rek ma visé bëgg leen ko ma visé bëgg leen ma visé adopté leen ci sama xol waaye def ci bokk c'est moom fils. c'est moom fils nee naa la jaaga mi ko jur yaayam sax bu waxoon ci waali bu geesoo daf may gis. parce que parce que dama ko bëgg quoi man bi ma koy bëgg xaaruma ci moom yëpp mu rawati nag mu wan ma Seydouna Mohamed wan ma borom bët bu rëy bi wan ma jàqu yàlla bi. wan ma ki nga xam ne mooy jàq yàlla bi mu ne jàq rek kooku la ni jàq. waaw kooku mooy Seydouna Mohamed. waali kooku la ma wana ah, ki ma wan amatul luy taxaw ci sama kanam ma di ko xool te duma ci duma ci jéem dara ndax muy lu baax muy lu ne lu bon daal laa dul xool te yonent bi la ma wan te ki ma wan mooy wan gi mooy tukki bi gën a sori tukki bi mujj tukki bi nga xam ne mooy tukki bu njëkk bu mujj bi fa la ma waali wan ki la wan yonent bi nag defal na la doom ji dagg ci sa butit doon am yéene te mënagu ko moom ko loolu la ma defal li nga xam ne sama yaay gis ko sama baay gisu ko la ma waali defal kon nag dootu dootuma nangu ci sama vie man lu dul ñett ñi rek laay déglu waali moo jantal waali mën a way waali waali dàq way di ñaan mu barkeel ci waaye bu defee tey bu defoon te xale la tamit tout le moment mën na def juum mun na def leneen mais lu ci mënti am bu boobaa dina am neneen nuñ ko xam ne noonu lañ koy réglé du publiquement télévision wala micro àdduna sépp di ci jàq déedéet man su ma nee baax na rek baax na ndax sima laa benn yoon lay tooy Mm-hmm. ok maman Aïda ku ne gis na euh, Ameth Thiou ni mu meloon ak Thione sekk comme ni nga ko waxee sànq yow tamit Wally sekk sa doom la euh, comme chaque jour da nga koy wax loolu da dëkk ci di ko wax mais est que jàppoo ni tamit yow mi nga xamante ne nii yaay yaay ci Wally euh, Ameth tamit gëm naa ne jàppaloo ko dara mais est-ce comme ni nga koy defee saa su ne parce que dañuy gis ne ay nit bu ñu amee problème yow da nga leen di woo daal leen di jéem a jubóole xool lan lañ jotee nga jéem cee dox ay ay ay ay jéego est-ce que tamit doo def loolu tamit ci diggante Ameth Thiou ak euh, waali Seck. Ah, fii goo ma ne problème am na lii du problème parce que dafa génn ne kontaanu ma. Mm-hmm. ñu waaw mu ne kontaanu. Mm-hmm. mais à chaque fois dañuy gis ni ñoom ñaar dañuy am euh, pro kii day am si seen diggante daal. Mm-hmm. dañuy gis ne à chaque fois ay wax yu sew day euh, am ci digg ci moom daal dafay dañuy gis ay wax daf koy jéem a wax ci Wally. est moo tax ma ni la li ma ci war a wax. wax naa ci ba pare ndax nag. doom ji moom ku ko kaata rek ma doom pat la ah su ma la dompatee ba pare nag suñ paree ñu waxtaan. ndax ñëpp xam na ne man sama cofeel ci waali mais mais mais mais waxuma lu li waxuma ko lu li ma ko wax. Mhm. bu toogee wéet sax day xam ni lii ma soxna Aida Saliou wax dëgg la. Mhm. te du ci man la ko njëkkee. Mhm. nee naa la man damaa localiser su may wax ci waali du ma tàggu waali ma tàggu staff du ma tàggu kenn. man da man man man laalal waali rek wax ko loo xam ne rek man déranger na ma. man su ma sentir ne man de lii déranger na ma rek. warut a mën a nekk rek pour man damaa war a génn wax te su may wax waxee dama lay wax li nga xam ni yow boo ko seetlooy di nga xam lii dëgg la. voilà loolu amul problème ñun la rek c'est la famille. amul benn problème comme jaay lum la wax ah, gis nañ ko ci non dañuy waxtaan ñun dañuy waxtaan après man dama koy woo. Mhm. dama koy woo après ma xool lan mooy problème bi. Mhm. waaye lépp lu ci mënti am rek problème bi dafa am neneen nu mu waroon mën a demee. Mhm. parce que lii gan yi la waroon. wala ñiy fans wala ñiy bëgg. mais moom c'est la maison. ci kër gi la bokk. lii waru ko woon. waaw après ñu waxtaan lan la mu jeex ah. mais bi nga seetaanee loolu yam ci moment boobu lan nga yëg. ah damaa liw. sama xol dafa naqari damaa liw. <laughs> waaw da nga fa jëlee grippe. waaw damaa grippe <laughs> damaa grippe sama poumon yi ak sama rein yi li war a dara demut. Mm-hmm. su ma waxee dëgg rek tamit. parce que mbëggeel moo ma toll foofu ci waali mm-hmm. waaw nattu daf ma ci dal nattu bi moom yàlla moo ma ko teg. waaye yàlla baax man waali su jooyee ma jooy su reetaanee rek damay ree man damay toog di ree buy ree ni damay ree quoi ah. waaw man awma musique man du déglu musique man du ma déglu musique man saaliw rek laay topp mais mm-hmm. nattu moo ma dal ci moom mu xam ko nag yokkaat ma nag beneen nattu oh. mooy mu teral ma teral goo xam ne euh, doy na waar daal nañu bàyyi lépp yàlla sunu borom. yàlla sàmm ko may ko xolu muñ parce que tamit lii yëpp jiitoo ko waral. Mm-hmm. te tàmbaleegul quoi. Mm-hmm. yëpp après yii ñëw moo gën a garaaw fop mm-hmm. mais dina ko maîtriser te dina ko muñaa ah. parce que fi ñu bëgg a séentu ñëpp lettre bi bàyyam bindoon moom moo ko war a liir liir bi nag faaw mu jël temps après neex bég kontaan mais yii du ci mën a ñàkk ferñeent yi mais son waale ban moo la ci gën a neex soxna Aida loolu sax dama la koy bëgg a laaj de ah Abdou Khoudia ba son waale ban moo la ci gën a neex. sama yaay ban moo la ci sama yaay. sama yaay. Mhm. buy wax sama yaay da ngay xam ne day yëg bëgg yaay. dama damaa bëgg sama yaay sama yaay moom bu koy way damay xam ne sax man lay way man ndax man dama koy jël seddoo koog jaaga wala ma poqati way bi ne maa ko moom man pour man man lay way waaw parce que man damay jàpp ne man maa ko jur daal ci sama butit la daggee man sentir boobu laa am booy wax ci wàllu lu baax dama lay seetaan ak a seetaanaat mais boo waxee ci moom safaan rek dootuma la sa bëgg a xool ma la bëgg a seetaanati sama xol moo lay mujj fàtte d'accord mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nattu la. yaakaar naa ne loolu am na solo comme ni nga ko waxee moom nee na dina def tout ba euh, fexe. waaw foofu jàmm moo fay am parce foofu dara mënu fa am lu dul jàmm. d'accord parce que ñu bokk ñu bokk teen. ñooy laxasoo ay goj waaye goj bi bu dee tey bu fekkoon ne waali moo def lii rek ñaan ko se normal xale la xale la moo tax mu def ko mais ki ko def day mag paa la li du cëram. voilà kay ah daba mais mais maman Paa la mais même génération la. am no génération bokkul de génération fa am am kii moom Papa Thione la loon génération Paa la. waaw. Ah. Ah, oh. Paa rek maman yi loolu nga wax. ah mais Paa la ci Waly Waly bu taxawee mu taxaw Paa la ñuy Paa la ñuy bind. mais tamit moo war a tax nag jox ko cëru papa tamit. da nga mës a gis Waly def lu déborder. ah mais li mu yow li mu li mu wax nii bu ko bu ko xale waxoon Waly génn mais Waly doo ko mës a dégg mu wax. parce que day xool ne Papa Thione moo wax rek. mais na ko cër boobu est-ce que waa jox na ko cër soo paree da ngay dem soo paree léegi soo paree yow loolu noonu dama lay yónni boo demee nga gëstu ko. non ma ko man xam nga man xam nga man tey li ma gis ci Wally bu ñu waxalee yàlla ñun sénégalais yëpp loolu lañ gis ci Wally boo ne Wally rek yar bi nga si teg. boo ne Wally rek respect bi gënoon na metti gënoon na jekk ci lu manque respect te nit nag da koy xool ci tolluwaay bi mu am. ak ci ni ko yàlla bindee nga dimbali ko ci loolu. nit ki bul xool ne lii boo ko point faible man sama jëmm ji tey. maa ngi lay waatal ci rasulullahi mi ma amul ku dul moom barki Serigne Saliou. man lu ma waay wax ci sama jëmm ji doo am retour. parce que du ma la tontu. merci beaucoup rek damay rey quoi. parce que xam naa ne man tous les bien bien rek laay def. kon leneen lu ma waay waxal te bien rek. mais am nga ay tontu am na ay jëf yu sew yoo koy defee. non man murit laa. Mhm. man murid laa taalibe Serigne Saliou laa mhm. dama am ay ferñeent ferñeent yooyu mooy déranger nit ñi parce que benn euh, euh, sant naa yàlla julli ci yonent bi xew naa te dootuma xewi loo ma bañ bañ boo seetaanee démb bëgg ma boo seetaanee tey bëgg ma taalibe sëriñ Tuubaa laa taalibe sëriñ Saaliw la kon mbëggeel gi cofeel gi day nekk ci man ba faw mais boo déggee loolu ma ne la man duma tontu détail képp koo xam ne jël nga décision pour tontu détail ci man jàppal ni man jéggal naa la parce que du ma la tontu taaba boobu awma ko man temps bi may tontu détail maa ngi ci ay ay ay ay liggéey ay det waaw maa ngi ci social maa ngi ci développement Mm-hmm. maa ngi ci soppee yi maa ci fan euh, ñi ma fan mm-hmm. kon awuma temps pour di tontu ci sama jëmm ji dara mm-hmm. mais Wally dafa nekk benn secret boo xam ne sama kër sax sama njabootu bopp xam na loolu ci man loolu loolu nattu la te nit ku nekk sa man la man maa koy yëg quoi man maay yëg loolu kon loolu laa mën a wax waaw mi nga ko waaw doxalal doxalal non doxalal waaw <laughs>